comme je l'ai dit tout le ci ñëwaat parce que dem là qui repose en paix mhm. mais passage am war na jàngal nit ñu bare mhm. parce que li mu am bare nañu génn àddina te amuñu ko mhm. te témoignage yëpp benn la c'était quelqu'un de sociable social euh, d'humble quelqu'un qui qui était fédérateur da ngay tourner même su ma dalul ka mu dal nettali na la. Mm-hmm. diw moo tax sax ma yeggali sama tournage bi. day ñëw toog wax yow ay Baye Fall xoolal Ndiaye jógal dem waay. Mm-hmm. garaawul amul solo barewul ñu koy def. Mm-hmm. su ma yoree saak wala kii nii day ñëw fekk ma maman indi ma teel la sama saak sa saak bi c'est le respect. dem na ba ubbi groupe boo xam ne bii c'était pour faire du social. il paraît que.

gënal metti le kese moo am xaw ma gën a bees le kese moo am mais gën a metti le amul am na solo moi j'ai perdu une fille keneen perdre na nangam keneen perdre na nangam tu te dis que ne perdre naa sama yaay perdre naa sama papa tu te dis que ne doo doo doo ci mën a dellu seeti waaye ñi nga xam ne ñooy parents yi nga xam ne ils ont perdu leurs enfants wala ñuy perdre seen yaay ñëpp yal na leen yàlla may xolu muñ Le na leen may xol yalla yalla may gaawul dul dina metti dina metti waaw ñu ci octobre rose gis euh, euh, mi nga xamante ni moo ñu wan ginnaaw euh, ni ki jeudi bi ñu weesu mm-hmm. tey lu bari information réseaux sociaux yi mel ni feebar bu ci ko en tant que femme naka nga ak ban euh, solution nga war a mën a jàpp ne war nañ ci mën a taxaw ci cancer yi ne ñuy faj soxna yi. ku nekk la lay yóbbu. Mm-hmm. ku muy jullit beeg chrétien beeg moom la de ku nekk la lay yóbbu. Mm-hmm. may jaale bugaan. Mm-hmm. nga xam ne. ci waa kër Demba Taalibe la bokk ma bokk ci waa kër Demba Taalibe macha di jaale jaaga mm. yaayam ndax sëram kile mm-hmm. ñu nekkoon soxna dem si yàlla si dun jaay Rose moom it yàlla jël ko mm-hmm. sama xarit la woon di jaale waali mi nga xam ne léeg damay tooñ euh, Youssou Diagne naan ko mën naay mer waali yee

metti na nag ndax la muy dund la mu doon dund moom rek moo ko xam. la mhm. ko yóbbu moom rek moo ko xam. metti na metti na. Mhm. octobre rose lañu wax su fekkente ne laa wax. Mhm. loolu la moo ko yóbbu. ci octobre rose bi nga xam ne tey jii ñu ngi ñu ngi sargal ak di delloo si jigéen ñi seen xel naan allez vous faire dépister. ci la ko yàlla jël. c'est un message fort si c'est ça un message fort mm-hmm. tout le temps on appelle au dépistage C'est mm-hmm. euh, euh, euh, mm-hmm. docteur Wardini mais sur les deux voies de Liberté 6 Ben wax mais est-ce que problème la problème dépistage maman parce que nous nañu yokkuwaat na ci li nga xamante ni moom mooy lim bi ñu amoon est-ce que tamit jotul ñu yokkuwaat euh, jàppale jigéen ñi ci fajuwaay gi euh, ci tamit li nga xamante ni moom mooy seen ay médicaments ak li nga xamante ni moom mooy seen ay traitements. est-ce que boo déggee ñu ne dépistage. Mm-hmm. chaque fois tu vas voir le médecin tu as quelque chose qui te fait mal. Mm-hmm. xam nga jàppale jàppale jàppale c'est bien nañ jàppale suñu bopp ba pare. Mm-hmm. jàppale suñu bopp mooy un cancer qui est détecté très tôt, mm-hmm. qui a été détecté très tôt, ça peut se soigner. Mm-hmm. Ça se soigne. J'ai un cas mm-hmm. très proche, ah très proche, que je salue. Une sœur, c'est recutinante. xam C'est parce que daf côté, le elle a été très prise en charge.

keroog ba mu ma ko waxee dama jooy mu ne lan la ma jooy waaye lu yàlla def noonu la waay far yàlla jàppale ko ma am beneen cas boo xam ne bii moom daf ko bàyyi mu traîner elle est partie avec il a donc dañ koy dund pour xam ko mm-hmm. nee la del làmb sa ween mm-hmm. amee doom bi nii wala xaw ma va voir le médecin demal ñu seetal la euh, euh, euh, defal la frottis col de l'utérus demal def mammographie yëpp nag am tuuti ci loolu li ñu war a wax mooy peut-être que prise en charge surtout ça comme ni ñu jëlee ñuy def dialyse mhm. ñu jàppale ñuy def ñu euh, euh, cancer comme en France Les mhm. Américains, elles sont prises en charge des personnes atteintes de, de, du cancer parce que comme on naa ci ñoo xam ne nii ñoom en charge mhm. des Sénégalais qui vivaient là de France ils sont leen en charge mhm. mais le ministère de la santé y a des gens qui sont en charge. parce que le ministère de la santé euh, n'est pas la femme politique qui parle. C'est la femme lambda, la femme en tant que telle, mhm. qui suit les informations du ministère de la Santé. Nous gouvernement de la Santé, mhm. bon les les femmes mais

cancer de la prostate. on parle des femmes des femmes des femmes mais il y a les hommes qui meurent à cause de ça. même cancer du sang euh, dégg naa ñu am. cancer du sang mm. mais même prostate moi cancer prostate. Mm-hmm. te on parle des femmes, mais on doit parler aussi des hommes. La prise en charge doit être totale. À 100%. À 100%.